Le Sénégal a remporté la seconde place du concours international de récitation du Saint-Coran à Dubaï. El Hadji Cheikh Dia, âgé de ans, à honoré notre pays en devenant vice-champion du monde. Les résultats sont tombés hier vendredi lors de la cérémonie de clôture de l'événement qui avait débuté le 2 avril dernier. Classé deuxième au concours national de récital de Coran Grand Prix Sénégal 2021, El Hadji Cheikh Dia est élève au Dara El Hadji Cheikh Dia de Touba. Le président Macky Sall a tenu à le féliciter en écrivant ces mots sur Twitter. Mes chaleureuses félicitations au jeune El Hadji Cheikh Dia arrivé deuxième au concours international de récital du Saint-Coran à Dubaï. Encore une excellente performance de l'enseignement religieux de notre pays et des daras de Touba. Les syndicats et organisations de la santé se sont réunis pour analyser la situation sanitaire et sociale du pays et particulièrement la région de Louga. Après avoir manifesté leur soutien au personnel de santé, ils ont décidé de mener un front pour rétablir la vérité. Ainsi, il est prévu un point de presse le mercredi 20 avril 2022 à partir de 10h à Kermadia de la CNTS et une grève générale le jeudi 21 avril 2022. Le projet de loi qui devait augmenter de 7 le nombre actuel de députés a été bloqué vendredi après un vote de 95 voix pour et 12 voix contre. L'Assemblée nationale a en effet adopté un amendement qui maintient à 165 le nombre de députés à élire pour la prochaine législature, ce malgré la création d'un nouveau département en 2021 et la volonté du ministre de l'Intérieur d'y ajouter 7 sièges. En Afrique, le Burkina Faso va recruter 3000 soldats supplémentaires pour grossir les rangs de l'armée qui subit de lourdes pertes lors d'attaques terroristes de plus en plus fréquentes et meurtrières, selon un communiqué du ministère de la Défense. Les forces armées burkinabées sont estimées à entre 15 000 à 20 000 hommes, dont plus de la moitié servent dans l'armée de terre. Après cinq jours de catastrophe, les espoirs de retrouver des survivants du glissement de terrain à Durban en Afrique du Sud sont minces. L'armée avec des hélicoptères et plus de 4000 policiers ont été déployés pendant que les secouristes intensifient leurs recherches sans relace Ils retournent la boue, collectent des indices pouvant indiquer une trace humaine encore en vie. Des plongeurs ont exploré l'eau de rivières sans rien trouvé. C'était tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention. asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatuhu mbokk yi dal leen ak jàmm ci seen institut international ICFA professeur Mouhamed Sakho ak équipe bu xarañ bi mu àndal leen dong moo leen tax a jóg fexe ba noo leen di jote ci njàngale alquran al karim